Ousmane Sonko wax na wax ju yees peq démb gannaaw bi nag da ko rënkoon ci ay daal kii mu ngi ko rënkoon gannaaw bi nga xam def na ko lii ngeen di bëgg a déglu ci jamonoy tabaski gi bañ ko barricadé la ko waxoon wax ko bàyyi ko fi ay épisode la nag premier épisode bi jàll na mën naa nekk ba dis épisode ça dépend euh, ci loolu la ñu dem nag ci euh, première vidéo bi nga xam ne wax na ci euh, gannaaw bi dañ ko tëj dinañ test par thème dinañ def yu bare bare bare après ñu ñëw ci stratégie bi premier élément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 may fàttali ni projet bi ba ñu dooree politique ba léegi yéen Sénégalais yi projet la wax laa waxtaan ak yéen waxuma ak yéen nit de mosuma leen ne je suis la seule constante ñi ci des ñëpp ay variante lañu mosuma leen ne su dul man c'est le néant moo tax ñun dañu am amal solo rek mooy nañu jàllale projet bi buñ ko jàllalee ba noppi ñu dajewaat ñun de l'autre côté xool nu ñuy tojee suñu bopp jën a nu ñuy defaree réew mi dina am fu ñuy toll projet bi day soxla passeur passeur rek lay soxla kon ñun suñu demee dem dem dem dem ba gis ni frontière am na def nañu benn barrière def ci seen i grillage dañuy soxla beneen stratégie boo xam ni pour passage rek la waaye tekkiwul ni projet bi tayle nañ ko wala joxe nañ ko wala saraxe nañ ko déedéet kon projet bi mooy suñu yitte ñun projet bi faw mu jàll te du jàll deux mille vingt neuf du jàll deux mille trente quatre du jàll du jàll projet bi dañoo bëgg mu jàll ci deux mille vingt quatre bi ci kattanu yàlla ak bëgg-bëgg Sénégal yi moo tax Ousmane Sonko am na solo lool ci projet bi am ñenn sax dañ naan Sonko mooy projet projet bi mooy Sonko waaye projet bi Ousmane Sonko du ci koo xam ne ku indispensable la ba bu fi bu fi ñàkkee rek projet bi taxaw bu loolu amoon rek ma xam ne échoué ndax loolu moo indi échec gu ñu bëree bëree bëri mooy li ñuy tabax yëpp dañ koy tabax ñoom ci seen bopp ñoom ci seen tur seen tur seen daraja loolu amoon ci Pastef te yàgg nañ koo wax yemul ci discours dañ koy jëf ñëpp gis ko munoon nañ ne dañuy nekk candidat par force bu ñu dul candidat lii dina fi am lële dina fi am déedéet dama ni man Ousmane Sonko bu mu mënul nekk candidat danañu fexe ba projet bi jàllale ab wala ay candidat loolu moom mooy suñu préoccupation bu njëkk ci liggéey boobu nag wala ci xalaat boobu laa jàpp ni buñ ci tollee ba war a de dem uti parenage buñ ci tollee buñ ma joxee fiche de parrainage mu uti parrainage ñëpp daanaka soxla ma ko wul sax ndax fi ma toog su ma newoon parrainage laa bëgg waa Tamba nañ jóge Tamba ñëw parrainé waa Matam def ko waa Kidira def ko wa Ndaka wax ma waa Ndakaar ak keneen ñi nga xam ne jege nañu fii waaye bu buñ ci tollee bu ñu joxee nañu dem wuti parrainage buñ ñu ko joxul it dinañu libéré même buñ ñu ko joxee sax dinañu fexe ba am ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne dañoo ànd ak ñun ñii nekk ci parti bi di membre Pastef yu fës yu ñëpp xam ñii di suñuy allié ñëpp xam leen ci ñu ànd ak ñoom ci loyauté ak discipline dinañ ci tànn ñoo xam ne daañ nañ ne dem leen jëli ay parrainage ay fiche ci biir parti bi ngeen dem wuti parrainage wala ngeen déglu ñu waaye noonu noonee it dinañu seet ci suñuy allié ñi nga xam ne ànd nañu ak ñoom te déclaré wuñu candidature pour demal seen bopp ba fi ñuy wax nii te amaana peut-être duñ ko déclaré ba keroog ñu toll ci war a dugg ci parrainage bi ndax ñi ko déclaré te di suñuy allié am na ñu ko defagum te am nañu courtoisie ak yéeg bu doy woo nañ ma ci téléphone ne ah voilà mi ngi noonu Assane muy déclaration boo xam ne Ousmane Sonko wax na ko nga xam ni daal bu doon da ko doon wàccee ci niveau beneen bi di ko indi ci wàllu naan sëriñ si gis da nga naan Ousmane Sonko dafa gisoon li waroon a ñëw lépp it tamit waaye wax na wax ju am solo ci biir mooy na ngeen xam ne nag lii nii bis bu fekkee ni am na amul rek mooy vidéo yi du ngeen ko gis waaye bés bu ngeen gisee ni jàpp nañ ma rek di ngeen gis vidéo yi dina ñëw benn par benn te mooy premier épisode bi wax na ci stratégie bi ñu def ñoom pour parrainage bi ak candidat yi ñu am dajale ko waaye nee na moom du moom du mbir mi affaire bi projet la même bu dul Ousmane Sonko euh, pour nag ñu yegg ci loolu jëlee fii li fi nekk il faut nee na patriote yi ak ñi gëm projet bi may ko nopp moom ala kulli al dina wax ni kii la ñuy jox projet bi pour mu dem ak moom. son bu xam nga bi may jox kàddu nii maa ngi wébbali. bi may jox bi may jox kàddu nii maa ngi wébbali. waaw ndax damaa gëmmentu damaa nelawut biib. waaw ndax bi ma gisee vidéo yi. Hmm. dama doon xool angal yeeg yooyu di xool angal yi di xool maam di xool daal ba xam yan sew sew laa si mën a gis yan kii laa si mën a gis waaw. Mm. ndax euh, boo xoolee jamono léeg-léeg dara day xew sëriñ Cheikh Tidiane si almaxtoom dañ naan lii la si wax. Mm-hmm. wala ñu ni Serigne mbay lii la si wax. wala sëriñ bi jàlloo mm-hmm. lii la ci wax waaw maam jamono day dikk rek nga xam ne nit yàlla yi. maam lu xew rek dañ naan diw waxoon na ko nii la ko waxee woon am na. kon nag tey jii bu ñu demee ba tey jii jamono ji toll fii Ousmane ko wax ko même ni mu ko waxee. Ah, man daal bëgg naa ay Aïssata Sarr Sall demaat seeti ko ak ñooñu di xool ba xam. Ah, te vidéo yi des na de. moo tax mu bëgg Aïssata Sarr Sall ñoom ñu dem xooli ndax moom bindoon na fi nii damay wax ñëpp di kii ba ay Aïssata Sarr Sall wax naa ko wuroo wax si kaso beeg yooyu na dem xooli ba xam. <laughs> fu mu waxee waaw. ah da jàpp ni wax ju bees la. jamono te a mënu koo joxe nii kii daal. <laughs> non Assane na dem ay sat saasaal na dem. nañ vérifié ji néegam na dem vérifié foofu. néegam. waaw fa nekk na dem. Ousmane yorul téléphone. na dem vérifié rek Ousmane mën na lu ne. <laughs> waaw na dem vérifié xool moo gën a wóor. Ah. ndax wax dëgg yàlla nii nii nii mu ko waxee nii jamono dikkee nii mu wax. téye ak stratégie gi ñu teg. waaw candidat yi mu wax si. parrainage bi ñu wax si parrainage yi mu wax mu wax lépp mu méngoo. na dem xooli ko nu mu toogee. waaw dafa mel ni lim lim vidéo lépp la gaa yi de waaw na dem wax nu mu toogee daal joxe. émission nag nee na euh, wax na li saa daan faral di wax ci jàngatam daal ni patriote yi fépp la ñu ne. Mhm. Ousmane wax na ko ci wax ji nee na. Mhm. fépp ci réew mi. waaw bànqaas boo dem am na fa. koo mhm. xam ne ku gëm la patriote la. dañ koy informé. saa nga ni Aminata Fall mi mu ne ma Sanjoogu daan wax naan. Euh, Ousmane Sonko gëmul nguur nee na ma ah, ah saa nag nguur moom Ousmane bu ko gëmul nag Ousmane ni mu ni si affaire yi nangam naa mais Ousmane da ko wax nee na xam nga lii amagut mu daan ni man bu ñu ma téyee bu boobaa. waaw daal di wax ñeneen ñi war a nekk ba lim lu mat cinq ni ñooñu ñëpp mën nañoo toog. si lay doog a xam ni kon li El daan wax. El Hadj kii kat gëmul nguur mais ni eh, jamono dikkoon bu fekkoon normal na ñoom duñ doon ay politiciens Aminata Fall mu ngi koy wax tey sànq sax si suba. macha allah mm-hmm. kon daal nañ dem xooli. nañ dem xooli nu mu toogee daal ndax. daal affaire lii daal man ko yu yàgg. mais bi waaw waaw mooy stratégie communication weesu foofu. asal gi tuumaal soo <laughs> ak garde pénitentiaire yi. waaw yow dem seeti rek te ñëw. aywa alaaji mm-hmm. dama lay bàyyi rek nga ñëw ci ni nga déggee discours Ousmane Sonko. Euh, ginnaaw premier épisode bi te nee na des na. Mhm. waaw. waaw d'abord bon démb suivre naa ko seetaan naa ko. Mhm. bon déglu naa ko it bu baax a baax a baax bàyyi xel ci li nga xamante ni bii moom la wax. Mhm. bu baax a baax. mais li am solo benn waaye daf ma daf ma woo. bi affaire bi jeex rek mu ne ma. Euh, saa yi ngi toppandoo Idrissa Seck de mu demee Idriss Seck defoon na ko quoi. defoon na la lii. mooy seedeem yi ma ne ko non non Idi li romb la doon wax kii liy ñëw lay wax kon bokkuñu. ah Idi. da doon nettali li romb da doon notti li romb fi mu jaar ak Ablaye mooy seede yi mu doon. waaw kii fi mu jaar la wax. kii day wax li war a ñëw ma ne ko bokkuñu quoi. maanaam kii wax li romb. kii daan bis di lii dina xew. tey jii li ma romb ak si kii eh, son yi. mën naa ko nett waaye lañuy war a def ca kanam. xaw ma dëgg la. waaw ah, donc kon eh, foofu laa ko toll après mu ne ah saa daal yow da ngay caaxaan daal di ko <laughs> dëkk bu neex la quoi. Sénégal ngay neex la. waaw mais li am solo. Hmm. mooy damay xool ñaar ñi. ñaar ñi. muy président Macky Sall mi tëj Ousmane ko ci këram. waaw moom mu ngi doxal. Mhm. mais moom mi mu tëj ki mu tëj. xam na moom li mu war a def. moom Macky li mu war a def mais Macky mi ko tëj xamut moom kii ci lu mu ne. Ah, maanaam ki ñu tëj xam na ci li Macky ne. waaw te Macky xamul ci li kii ne te Macky xamut ci li mu ne. maanaam niveau yi laa def maanaam euh, kii. Mhm. Euh, maanaam ku ñoom ñaar boo lënkalee seeni nit ñu jotee xibaar mhm. maanaam dañu barricade Sonko mais ci kaw barricade Sonko bi Sonko xam na barricade bi li ko waral ak li ñu nar lépp xam na ko ci kaw ñu barricade ko te moom mu ngi enregistré ay vidéo di defar mais ki ko barricade yëgut moom kii lu mu nar mhm. te moom lañ dénk lépp maanaam dafa mel ni ki ñu dénk réew mi moom mi ngi nelaw kiñ ko dénkut moom mu ngi xippi di xool di gis li war a xew. donc loolu mooy première euh, réflexion bi nga xamante ni bii moom laa ci def. ñu mm. ma gisee mbir mi. waaw ah. mu wan mat beneen mbir. mooy ne Ousmane Sonko ay gor dëgg la àndal ñoo xamante ni bii garder nañ secret. Mm. liñ naan nit du homme d'état parce que lu mu xam wax ko fii moom ñii moom liñ xam waxuñu ko. fee moom am na ay xibaar yoo xamante ne bi ñu ngi ko doon ñëwal. Mhm. ñooñ di indi xibaar yi nag ñooñu bu leen jàppee ne ay nit lañ yoo xam parce que gis nga patriotisme day nekk ci nit ki. Mhm. am na nit ñoo xamante ne bi dañuy nekk ba gis ni lii gënut ci réew. ñu ne nañu sauver réew mi ak nu ñu ko mën a sauver. du ma leen tuddee ne du ñu ay kii mais ay nit lañ yoo xamante pareen saay il faut boo occupé yenn poste yi nga dem ba gis ni yëf yaa ngi loolu. Mhm. bon mën nga continuer occuper parce que nga xam ne foofu nga mën a liggéeyalee sa réew parce que dafa am yu bari loo xam nga dama waxoon Assane ma expliqué na ko. Mm. am na ñoo xamante ni su réew mi tegu woon ci yoon war na yàlla duñu dugg ci politique man jàpp naa ni ñoom Ousmane Sonko seen consort gi yëpp. Mm. ay Cheikh Tidiane Dièye ñoo ñëpp bu fekkoon ne réew mi mi ngi doon tegu ci siraatal mustaqim normal. Mm-hmm. duñ dugg ci politique. Mm-hmm. maanaam mm-hmm. ñoom dañuy toog ci ay bërëb. gis ni réew mi ñi munut. ñi ngi yàq te ñoom ñu mën. ba noppi nag bu ñu toogee seetaan dañ ci am cër loolu moo leen dugal ci politique. Mhm. moo tax gis-gis yi bokkuñu. Mhm. Euh, leneen li am muy gis nga son yi. temps. Mhm. dafa am solo. ci laa bëggoon maanaam ñoom bi ñu ko mayee temps dañu may Ousmane ko temps gis nga loolu nag moom la ñuy si biir tey. waaw tëj gi ñu ko tëj maanaam tëj gi ñu ko tëj. bàyyi woon ko muy wëndeelu doon woon am jot gi ñu def li ñu bëgg a def après mais le fait ko ñu téye ko. moom mooy ubbi xelam. muy jot ay xibaar di xool nag lan la war a def. man jàpp naa ne bii ñu njëkk a génne jommal na gaa yi. mais dana am yeneen yu jommalaat gaa yi yoo xamante ni bii peut-être sax mooy gën a garaaw. Eh, li ci am solo xam nga Sénégal dañu mën a douter. parce que tey jii li sew sew yi Assane génne. daa wax ne est-ce que lii ak lii ak lii. parce que dama ne ah dama ne Aïssata du dem xool néegam wala. dama ne bon. vidéo bi lii mu mujjee wax euh, mënoon nañu ko dagg maanaam li mu am na lu mu wax ne bu vidéo yi ñi koy enregistré ak yooyu dama ne woon bon mënoon nañ ko sax dagg mais dama ne bon est bi ma toogaatee ma xalaat ma ne bon bañ a dagg bi baax na mhm. parce que mooy tax ñenn ñi gëm ni euh, lii lu yàgg la parce que am na ñenn ñoo xamante ni bi ba léegi gëmuñ ni <laughs> lii lu yàgg la mais nan la mën a nekkee comme dañoo bindoo rek day bëgg a wax. waaw gars yi Aïssata Sall Sall wax. waaw nan lay mën a defee vidéo. waaw moo tax bii yoon Aïssata Sall xamul kii nu mu demee ak affaire yooyu mais li am solo son bu waaw booy bi ñu doon toog fii di wax de Ousmane ko dana wax. Mhm. nañ ko déglu mu joxe kii yoom même chose la ñëw ne déglu leen ma waaw. loolu c'est extraordinaire parce que le fait que mun a déglu leen ma. te nee na projet bi du man. waaw xam nga déglu leen moom maanaam Sonko pare na ba pare pur que ñii fu ñu mën a yegg ak moom maanaam moom dafa leen a yóbbu ci ba ex maanaam yëf yi mën na dem sax ba nga xamante ni bi ñu ne ko doo gis nit. Mhm. comprendre nga. mais pare na ay vidéo am li mu war a wax ci période bu nekk kan lay jël. maanaam dafa pare. maanaam ñii dañoo am ak euh, nit. Mhm. dañoo am ak koo xam ni. pare na leen parce que xam nga lu tax hmm. daf leen a xam ñoom ñu dese koo xam parce que ñoom ñu doon gis mooy discours bi Sonko doon discours ak yooyu mais discours boobu avant muy am dafa am lu Sonko liggéey ba pare ñoom fi ñu waroon a poser ay question hmm. mooy waa ji yi nga xam ni yorut hmm. parce que ñoom ñëpp ku ci pour nit ñi bëgg la il faut nga yor mais ñu ne waa nga xam ni yorut amul lenn mais lan la mën a dugal ci bopp nit ñi bu loolu bu ñu ko kiiwal rek dinañ utiliser xel bañ a utiliser force. parce que seen combat bi yëpp ak Ousmane ko lenn rek la. Mhm. maanaam doole la ñu jiital. te gis nga doole ju bari. Mhm. dootoo jariñoo xel. te fekk na am na foo xamante ni fi xel nag ngay utiliser parce que lii mu def nii xel la utiliser. dafa am lu bari lu xel mën. Mm. mais gis nga euh, balaa nga koy xam. Mm. nga pare pour jariñoo ko. bés boo pariñoo paree pour jariñoo sa xel mm-hmm. maanaam mën nga découvrir yoo xamante ni sax di ne man lii nekkutoon ci man lu ko fi def mm-hmm. mbaa du luñ ma sol la fekk du luñ la sol du dara mais lu la sunu borom def ci yow la mm-hmm. mais dafay am yu koy yee faaw ñu teg yenn yi pour yooyu yeewu maanaam gis nga bi ñu ko tegee injustice bi nga xamante ni moom la ñëpp gis mm. tey jii loolu la ñëw di la indil maanaam wax yi mu wax yëpp mm. lii muy nekk nii xam nga li tax vidéo bi extraordinaire mm. maanaam lépp loo xamante ni bi wax na la ko dafa dëggal li xew tey. vidéo day jaxase kart gi. bon. lu muy jaxasewaat ci. géopolitique dafa wax benn dafa wax stratégie bu extraordinaire. mooy xam nga waxoon naa la fii ne la ñoom ñëpp dañuy nekk candidat. Mhm. tey loolu la Sonko waxa waaw ci kii bi maanaam candidat yi. parce que pour yokk seen i sens dégg nga ko ni mu ko expliqué. Mhm. maanaam dane temps d'antenne mu ne temps d'antenne bi nga xamante ni moom lañu ñu war a am xam nga cinq minutes la am RTS. Mhm. ku ci nekk. Mhm. maanaam bu dee benn candidat boo dee nekk éliminer nga ñeen jomaay dong moo am temps d'antenne cinq minutes mais tey ñi nga xam ne ñooy ay candidat mhm. maanaam bu amee ñetti temps d'antenne day am quinze minutes par bés. di wax ci programme am. sénégalais yëpp yëg ni kii li muy wax. Assane Mesere mii li muy wax programme bi la Sow bu li muy wax programme bi la man mii li may wax programme ku nekk jël benn pàcc léegi nit ñi dañuy gën a mën a déglu programme am. que les autres maanaam sens bi mu am ku ci nekk dañ lay jox pàcc xam nga tey ji peut-être saa yi temps d'antenne di nga gis kii dem jël pour candidat diw kiy jël pour candidat diw euh, comprendre nga maanaam tey man ma am ki mais moom lépp dafa nekk benn boo xamante ni bii tey mhm. programme bi nga xam ni moom la defar moom la leen di wax ne leen candidat yi ñii la mhm. ñii nga xam ni ñoo nekk candidat yi nag programme bi la ñuy dérouler bu ko defee nit ñi dinañ mën a dem toog déglu ko mhm. bàyyi xel ci li nga xam ni mooy programme bi ni nga ko xam noonu la ko nar a déroulé. loolu mbir la moo xamante ni bi mbir mu extraordinaire la boo xamante ni bi tey. gaa yi lu ñu jaaxle woon danañ ko gën a jaaxle moo tax may xam ni lee ñuy yëngal ci assemblée dinañ ko yëngal nu ñu ko mën a yëngalee. waaw hmm. ah, parce que yëf yi dafa jaxasoo. parce que waa ji daf leen. Euh, man moom man am naa ci ay xalaat boobu. dafa daw ci seen maayin bu daf daf daf xam nga fi mu toll nii. dafa mel ni tey. Hmm. Euh, ni ma la mën a kii bi. Euh, première man daf mel ni daal waa ji ñu waxoon ne du politicien bu mag. Euh, moo tax Bamba Diagne. waxoon na ko mooy kii baam Bamba Diagne mu dégg naa ko mu ne Sonko day mel ni ay xale yu ndaw la nekkal bu ko neexee mu jël bal bi jékki-jékki jox ko booy bi booy bi daal di këlëf këlëf bal bi mu kiiwaat ko comprendre mm-hmm. li nga xam ni noonu wax ne dafa mel ni ni muy politique ak ñii dafa mel ni ku nekk ak ay gone. tey jii nag mi ngi leen di montrer que ni euh, fi ngeen ne. fa ma ne kawe na lool. d'accord léegi nag loolu nag mooy naqari beneen camp parce que yow anticiper nañ sa kuu yëpp. wax ne nii ngay doxalee. te ni mu la wax ne noonu ngay doxalee noonu nga doxalee. d'accord te yow fi mu toll waajaa nga ca kaso ba. allah man nag am naa ji am naa ji ay gis-gis yoo xam ne man tamit. gis-gis yu suuf la. Mm-hmm. waaw. ay hmm. gis-gis waaw. gis-gis waaw da ngay waxee ba yàgg nga ni. nga ni am naa am naa ci ah, xalaat yoo ah, am naa ci ay xalaat yoo xam ne daal bu ñu paree. Ah. ñu waxtaane ko. incha allah man daal man daal génn beeg bi. am naa ci xalaat. Hmm. waaw yoo xam ne bu ñu waxtaane ko. Hmm. tabarkaal macha waaw mais du xalaat yëpp la ñuy wax ci kaw. <laughs> kon loolu bàyyi ba ñu dem suuf nga wax ko. Ah. waaye fi ñu wax ne ñii di toq toq bëgg a xam lu mu yaa ngi ko mosal bañ bëgg a xam. loolu am naa ci ay xalaat ah, wax leen ko kay. te xalaat yi ma ci am am na lu ma ci commencé woon ak euh, euh, voilà. wax leen ko daal. non non garaaw. Ah. bàyyi